الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di la ñaan nga la wayu jullit foo toll del sant yàlla ay xéewale mënoo koo peek ñu ngi seede na yàlla rek moo yeyoo ñu koy jaamu moom rek a yeyoo ñu koy ragal moom rek a yeyoo ñu koy yaakaar adduna ak alaxira suñu borom yàlla moom nga xam ne mooy fay ñey génne ay sarax di leen wuutalal bëgg lool ca jaamam ya ña nga xam ne ñooy def njëkk du neenal payu jullit ñu ngi koy sant di gërëm ci ay xéewalam di seede ne yonent yàllam ba moom la yónni woon mu ñuy jàngal fa ngërëmal yàlla nekk di ñu moytuloo fa merum yàlla nekk yàlla defoon ko mu gën a tabe ci doomu aadama yi amul ku ko mas a ñaan mu gàntal ko bal da daan wax bilaal bilaal joxeel rekk bul ragal borom arsh moom moo koy wóotal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca la tàggatoon ay saxaabaam yar leen ci àdduna bi ñu ñu ñu sàkk ko waaye gannaaw ba jiital ko ca la nga xam ne mooy àllaaxira loole daan def mbir yoo xam ne nii lu yéeme la lu jéggi dayoo la keroog bi suñu borom yàlla subhaanahu wa taala wàcce ne moom waay ana kuy lebal yàlla bor boo xam ne bor bu baax la man yuqridu llaha qardan xasana kii di abi dax daax daa ñëw ci yeninti yàlla bi na ko ay yumi yàlla yónni yàlla daa bëgg ñu lebante ak moom mu ne ko waawaaw ca ko mën a fay la mu ne ko maa ngi lay seedeel ni sama tool bi lebal naa ko yàlla nañ ko séddale masaakiin yi mbokk tool ba amoon na juróom benn téeméeri tàndarma boo ko bëggee xam arab ni mu fonke woon tàndarma moo raw ni pël fonke nag mi ngi mel ne rek benn pël bu jógoon géttu nag bu am juróom benn téeméeri yëkk mu ne lépp joxe na ko ci yàlla tax keroog ba yàlla wàccee ne du ngeen yegg ci mbaax lu dul la ngeen gën a bëgg da ngeen koy jël di joxe abi talhatul ansaar yi daa ñëw ci kii nga xamee ne nii moom mooy yonent yàlla bi da ko yàlla day nee na du ñu yegg mbaax lu dul ñu joxe lañ gën a bëgg maa ngi lay seedeel ni sama tool bi di bay ruxaa nekkoon ca sëste juma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jardin bu mag mu ne joxe naa ko ca yàlla tax loolee mbokk buñ ko doon jël ci misaal ci sahabatul kiram da ngay gis ne du jeex loole nag mbokk ñooñu ñooy suñu royukaay ñooñu la borom bi wax ñu topp seen gannaaw looloo tax ba ngalawaay nañuy góorgóorlu ñi ngi ci jamonoy concours ci luxe jamonoy concours ci ëppalente doomu aadama yi li ñuy créer kenn xamul nu ma toll ku nekk la la yàlla wërsëgaloon boo ko xoolee xeeb ko ndax gis nga téeméer yu la raw doomu aadama yi dañuy jël ay millions di ko dépensé ci loo xam ne wallahi mën na ñàkk jamono boo xamee ni demal ci àll bi nit ñaa ngi fay nekk woor duñu am lu ñu dogee nit ñaa ngi fay nekk amuñu loo xamee ni nii ndox moo xam ne ñi ngi koy naan démb rek maa ngi jokkoo kenn ku nekk ci région ci boori Caajaay mu may wax lu mel noonu su ko defee kon nga la waay xoolal yow la ngay décorer ëllëg yowmal qiyaama moytu la nga xam ne moom la seytaane di taaral tey doomu aadama yi ki am cent millions jàpp ñu ne pauvre la ki am un milliard jàpp ñu ne pauvre la lu tax mooy gis na ñoo xam ne dañuy réaliser mënagul a def dixième ba sant leen yàlla delloo leen xam leen ne moo ko julit suñu borom yàlla subhanahu wa taala day alal ji bi mu ñu ko joxee dañu ko jox ngir mu nekk moyen ñu jege suñu borom defuñu ko woon mu nekk moyen pour ñu noos ko àdduna mu jeex mbokk loolu pertaange kese la loo noos noos gis yéeféer bu la dàq noos loo bari la ay kër ak woto gis yéeféer bu la ko ëppale kon fan nga gën a yéeféer fi nga ko gëne mooy la ngay def te yàlla tax góor góorlu leen ci jëf ju baax balaa dee di dox seen digganteeg moom jokk leen seen boroom ci di ko tudd di ko bàkk di ko sant waaye nag jokk leen masaakine yi jokk leen néew doole yi ca xam leen ne mbokk suñu borom yàlla du wàcc ndimbal ci xeet du wàcc jàmm ci xeet lu dul xeet ba dañoo yërëmante ci seen biir di jàppalante ci seen biir di dimbalante ci seen biir rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne xam leen ne yërmaane yàlla ak ndimbalu yàlla du ngeen ko amee fenn lu dul da ngeen koo jaarale ci ñi néew doyle ci yéen commerce leen ak yàlla commerce bu amul pertement te mooy góor-góorlu seen alal yi yàlla teg seen loxo ngalla waaye bu leen ci xalaat dékoor ak noos kese xalaat leen nu ngeen ko delloo ci lu leen di xaar alaxira sahabatul kiram ñëw nañu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayow mi yàlla yónni ñun day ñii nga xamee ne nii ñoom ñooy borom alal yi raw nañ ñu ay yonent bi alayhi salaam lu waral loolu mu ne ñoom du ñu leen jiitu jàkka ñi ngi ànd ak ñoom jihaad ñi ngi ànd ak ñoom acc te ñoom ñi ngi yor seen alal di ko dépenser ñun amuñu alal na am mbokk julit sahaaba yooyu dañoo déggoon yonent bi alayhi salaam di leen wax ne kenn warul ñee lu dul ñaari nit mooy kii nga xam ne yàlla may na ko alquranul karim mu koy jàng guddeeg bëccëg di ko taxaw di ko jëfee ak yàlla may alal mu koy dépenser ci yoonu yàlla ñaar ñii rekk a jarañee du borom kër gu taaru ga du borom oto yu taaru la du borom la ngeen gis ci lu mu mën a doon ñaar ñi jarañee mooy ñii ñii jël seen alal di def te yàlla tax ñii jël téereb yàlla bi di ci taxaw ci yàlla tax loolee ba nga xamee ne nii am na yonent bi alayhi salaam jox leen ay askar yu ñuy def mooy subhanallah alhamdulillah allahu akbar 33 33 ci gannaaw waxtu bu nekk comme ni ngeen koy defee ñu teg ci ay jamono ñu ñëwaat ay yu mi yàlla yónni la nga ñu jàngaloon it borom alal yaa ngi koy def yonent bi alayhi salaam ne leen loolu ngëneelu yàlla la moo koy jox ku ko neex ngal la waay yu mi yàlla teg alal sa loxo yàlla teg na ci yow ngëneel faggul beneen ngëneel ba te mooy góorgóorlu delloo ko fi neex yàlla subhanahu wa taala allahuma doonte ne yàlla ci yërmaandem gu yaatu ga la nga xamee ne mooy ngërëmam jaglee lu ko borom alal ya kese bal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul kenn kuy joxe lu teey te yàlla du nangu ci jaami lu dul lu teey même loolu bu doonte ne genn wàllu xaru tàndarma nga sarxe ci yàlla tax suñ borom yàlla dina ko jël di la ko fulal ba mu tel na montagne moo jox la pay ga yowmal qiyaama mbokk suñu borom mooy nangu sarax ñu dàq sarxe ci kaw suuf mooy sénégalais ak sénégalais bu lay sarax danaan am yàlla jox la na am yonent bi alayhi salaam nee na balaa miskin bee nangu sarax sarax ba yegg na ci loxo borom bi jalla wa ala loolee kon ngeen xam yàlla mooy nangu xoolal la ngay joxante ak sa borom na doon loo bëgg na doon loo fonk na doon loo xam ne ku la ko joxoon nga gërëm ko loolee mbokk ku nekk ci ñu war ci góorgóorlu bàyyi ci xel mbokk jullit suñu borom yàlla dig nañu tagg na jaamam yi nga xam ne dañuy dépense guddi di dépense bëccëg di ko def fu nit ñi yëg ak fu nit ñi yëgul ñooñu day tiit du leen ñeel àdduna du leen ñeel alaaxira borom boobu subhanahu wa taala dig ñu tamit ne nga la way xam leen ne man may guddal wërsëg ñeel ko ma soob samay jaam maa koy gàttal ñeel ko ma soob samay jaam waaye nag wa ma anfaqtum min cheyin fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru raziqin amul looy dépensé lu dul yàlla wuutal ko loolee jullit du nay mbokk jullit li ngay dépensé yàkk nekk ca tool bay ji yéen a yem loo dépensé yàlla wuutal ko bal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal nañu ne amul heure bu jant bi di fenk lu dul yàlla yónni ñaari malaaka benn malaaka bi la muy wax ba ba jant ba di so ay yàlla si bépp jaam boo xamee ne nii mi ngi nekk am loo ko wërsëgal moo gis buntu yiw mu def ko ca yàlla yàlla na nga ko wuutalal lu gën beneen malaaka ba lu muy wax ay yàlla si bépp jaam bu gis bunt bu mu war a def mu daal di cay téye yàlla na nga indi tolof tolof ci alalam looloo tax nga gis benn waaye ngi du génn zakat du dimbali mbokk du dimbali miskin yàlla nattoo ko feebar ak ci njabootam ay millions yoo xam ne dépensé na ko ca du ci am ngërëmal yàlla ay doomu aadama xamal ne yonent bi alayhi salaam daana wax ne anfiq yabna aadama unfiq aleyk dépensel nu tol ne na ngay dépensé ci jaamu yàlla yi nu tol noonu la yàlla di dépensé ci yéen ca mbokk yàlla deremelul ne moom mbokk bokk na lu rëy lu ñuy yonent bi mooy turam muy sawara kii nga xam ne mooy adi ibnu xaatim nee na yonent bi toog lu xutba ñu di wax sawara di wax sawara ba mujj mu ne yal nañu yàlla musal ci sawara yal nañu yàlla musal ci sawara mu wax ko ñetti yoon nee na kanamam gi am tristesse mu ne nga la waay ragal leen sawara ragal leen ko ci même bu ngeen doon sarxe benn xaru tàndarma ngeen sarxe ko ci yàlla tax loolu muy wañe ne kon mbokk jullit lu la yàlla may lu mu néew néew lu mu bari bari góor-góorlu di ci dépenser ci yàlla subhanahu wa taala tax xam leen ne sarax day dana fay merum yàlla ci jaamam doomu aadama amoon na bakkaar yu ko mënoon a jural mbugalu bàmmeel mbugalu sawara sarax ya muy sarax yàlla subhanahu wa taala tax ba loolee yàlla tegg ca meram mbokk sarax dana yokk ak dund dana barkeel ak dund mbokk la nga xam ne nii moom mooy sarax dana doon loo xam ne nii dana tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala bëgg la yàlla bëgg na jaamam yay joxe xam leen ne mbokk jullit góor góor lu leen ci def lu baax loolee waaye rawatina jamono ji ñu toll te loolu tax ñu tànn xutba bi mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa la ko ci njëlbeenu xutba bi moo gënoon a tabe ci lu yàlla bind waaye nag tabeem nga dana gën a yokk ci ramadaan ba saxaaba yi dañ ne daa meloon na rek ngelaw bu riddi ngelaw bu riddi lu taxaw ci kanam mu yóbbaale ko rasul sallallahu alayhi wa sallam ramadaan mosaan jot lu mu mën a joxe da koy joxe lu mu mën a joxe rek da koy joxe sallallahu alayhi wa sallam waaye wëlbatiku it ñaax saxaabatul kiram ngan la waaye xam leen ni képp koo xamee ni nii wóor na ba ngoon nga jàppale ko ca lam doge mbokk loolee day xam leen ni suñ borom yàlla jalla wa ala dana ko bindal yoolu koor googee loolu moo tax ba bu dee mënoo dëkk cib sarax ngal la waay weeru koore ngi góor góor lu ci loo mën a joxe nga joxe ko ca la nga xamee ne mooy yàlla subhanahu wa taala keese tax nga koy def borom bi jalla wa ala mi ngi ñuy moytuloo ñu bañ a bokk ci jaam yi nga xam ne dañuy bàyyi ba dee teew ñu doogoon ak naan ay yàlla may ma mu dundaat tuuti waay ngiree ma def lu baax ca la ma bàyyi ca loolee mbokk dee ngi noonu heure bu dikkalee doomu aadama la muy mébét rek mooy yàlla may ko mu dundaat tuuti ngiree la ko yàlla wërsëgal ak néew mu daal di cay jël joxe ci yàlla tax yéen a ngi dégg yelwaankat yi nekk ci mbedd mi mooy bari la bari la bàyyi ko gannaaw néew la néew la bàyyi ko gannaaw loolu it yow doomu aadama foo mën a toll nga la way del xalaat déedéet mën na maa bette fu nekk kon naa fexe ba li ma yàlla wërsëgal bari na néew na naa ci def loo xamee ne ni bu dee ñëwoon tayit du ma toog mukk sama bàmmeel di rëccu naan aka neexoon aka neexoon déedéet mbokk jullit mbokk xam leen ni sarax boobu suñu borom yàlla yaatal na ko nga la waay yow soxna si lépp loo xam ne yaa ngi koy sarxe sa alalu jëkkër ca bu fa jëkkër nekkoon du ko naqari loole yàlla dana la ci bindal tuyaaba yow mi nga xam ne yaay gardien bi lépp loo sarxe sa alalu patron ca bu fa nekkoon du ko naqari yàlla dana la bindal tuyaaba bindal sa patron tuyaaba comme soxna si yàlla dana ko bindal tuyaaba bindal borom këram la nga xam ne mooy tuyaaba lii lépp ci ngëneelu borom bi subhanahu wa taala la nekk yonent bi alayhi salaam daan ñu ñaax ne képp ku ñëw ñaan leen ko jox leen ko lañu ubbee xutbaam mooy daawul gànt sallallahu alayhi wa sallam ku leen ñaan jox leen ko ku sàkk xettali ko xettali leen ko waaye gannaaw ba yit waxoon na ñaankat ya ne xam leen ne képp koo xam ne fekk na boppam jéem a suturaal boppam yàlla dana ko fekk ca loolu it mbokk ñu xam ne miskin day nekkul woon di ñàkk depuis jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ma nga yemoon ca ña nga xamee ne nii dañoo amoon ay silmaxaaki laago ña ca ña leen daan raxakas néew mooy ña amoon extrême coono ba bàyyiwuñu dara waaye am maa nag suñ jamonoy tey ñi nga xam ne dañ koo def métier. def heure boo xëyee sa métier mooy dem di wër di yalwaan mbokk loolee jullit wurul def loolu loolee ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk jullit xam leen na it def lu baax loolee day foo ko def baax na waaye nag ak a gën a baax ña nga xam ne say mbokk jege ñaale lañu na doon ñooñu ña nga fuuta wala Casamance waaye ak a gën a baax nga jagleel ko say dëkkandoo ñooñee nga xamee ni nii ñoom la yàlla boole leen ngeen dëkk ci benn gox yàlla wërsëgal la ngal la waaye booy jox ji jëkkeel ci ñoon jëkkeel ca mbokk ya jëkkeel ca dëkkandoo ya am nañu àq ca la nga xam ne mooy sa alal ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax di ñaaxaate te ñu def njëkk ci dëkkandoo yi ba bis sax mu ne man day jàppoon naa ne ah jibril daawul dañ di ma dénk dëkkandoo ba foogoon naa ne aaya dana ma sa wàcc ne képp ku dee alalam buñ koy miraas nañ ci sédd la nga xam ne mooy dëkkandoo ya loolee ngeen bàyyi ko xel bu baax ay yéen sama mbokk jigéen yu tedd yi yonent bi alayhi salaam wax na ak yéen ne leen xam leen ne yéen a ëpp sawara benn jigéen jóg na ko mayoo mi yàlla yónni loolu lu ko waral mu ne yéen da ngeen di suul njëkk gi leen seen borom kër yi di defal te da ngeen a bëri di génn wax ju ñaaw ci seen gémmiñ yi maa ngi leen di dénk ngeen baril ab sarxe keroog ba mu ko waxee jigéen ñi dañoo tiit fan ñu toog lañ commencé ñii di tekki seen i jaaro ñii di tekki seen lam ba mbubb bi bilaal yoroon fees dell loolu it maa ngi leen di dénk mbokk yéen jigéen ñi Sénégal la ëpp ci seen la ngeen di liggéey mi ngi dellu ci ay xew ay ndayele ay puukare ay yoo xam ne nii la ca ëpp merum borom ba moo ci nekk ngërëmal yàlla nekk fa loolu moo tax ba li ngeen di ndawtal dixième ba bu ngeen ko sarxee ci yàlla tax kenn du leen jiitu àjjana langue yi ngeen di créer des millions ngeen di ko pasar pasare fukkeel ba su ngeen ko defee ci yàlla tax kenn du leen jiitu àjjana ngal la waaye góorgóorlu leen ci loolu góorgóorlu leen ba miskin yi xam leen góorgóorlu leen néew doole yi xam leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam amoon na soxna bu ñuy wax Zeynab dañ ko tudde woon ummul masaakin lu mu masa am rek miskin yi la ko jox mi ngi noonu radiyallahu anha loolee ñu bàyyi ci xel bu baax nga la waay yoo jeune yaa ngi doog a dugg ci liggéey bul def sa objectif tey oto tey kër tey nangam loo am nga xeeb ko déedéet lépp lu la yàlla wërsëgal ci salaire jël ci ab cir boo xamee ne nii da nga ko jagleel jegeñaale yi di ko jagleel masakina yi wallahi da nga raw say morom da nga raw say morom ñay faye seen alal alal ji du question na bariwaay bi mooy jëriñ barkeel bi mooy jëriñ loolu moo tax ba sunu mag ñi nga xam ne ñoo jiitu ndakaaru nga xam ne ñoo jëkk ñëw fii di liggéey ñoom ñépp seen kër boo masaan dem ña nga xamee ne sax bokkuñu ñoom ñoo ëpp ñañ bokkal yàlla barkeelool seeni am-am da nga ci gis koo xam ne amuloon cinquante mille yor ci këram ndakaaru yor ci këram fuuta yor ci këram nangam tey sunu jeunesse bi ñi ngi touché un million et quelque koo ci gis mi nga am ay bor ci banque bi lan moo koy waral mooy jël sa bët yépp xool àdduna bañ a xool sa digganteeg sa borom bañ a xool àllaaxira mbokk génne sarax day barkeel alal day yokk alal dalay sàmm far say bakkaar yow mi nga xam ne dangaa feebar yow mi am ko feebar ñaanal yàlla génn ay sarax ñaan yàlla ay yàlla fajal ma sama feebar bi fee fajal ma sama feebaru doom ji yow mi yàlla wërsëgal nattu la say waajur jiitu nañ la sa njaboot gumma la doon jiitu nañ la xamal ne bokk na la leen fay gën a jëriñ mooy sarax yi ngay génne ci yàlla tax loolee baay bi nga nekkal weer wu dee nga yëkkati cent mille teg ci loxoom baay ba dee weer wu nekk nga sarxel ko dix mille francs wallahi moo gën ci moom téeméeri yoon bu doon dund nga ko jox cent mille lii mbokk kon ñi ngi koy fàttali suñu bopp di leen ko fàttali waxtu wu nekk dund gu nekk dañ ko war a jagleel ay sarax waaye rawatina heure bu shahru ramadan teeroo yal na yàlla wërsëgal ñu lu ñuy joxe yal nañu yàlla wërsëgal ñu joxe ko fa mu gërëm ñu joxe ko yal na yàlla nangul ñu àdduna nangul ñu àllaaxira yal na yàlla musul ñu ci ak nay yal na yàlla musul ñu ci xër ci àdduna yal na ñu yàlla wërsëgal àllaaxira rëy suñu kanam lépp lu ñu am ñu bokk koog jegeñaale yeeg mbokk yi ak masakine yi allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين